ahlan wa sahlan wa tarhiban bila adadi yéen ñi nga xam ne ñuy bàyyi xel rawat na ci naafile weeru koor yi seen site internet 24actu point a tey jii ci guddi ñetteel gi ñu indi leen naafile gi nga xam ne moom ngeen war a naafila mu nekk juróom-benn rakka rakka bu ci nekk fatiha inna anzalnaahu ñeenti yoon ak xul yaa ñeenti yoon juróom-benn rakka ko rakka bu ci nekk fatiha ak inna ñeenti yoon ak xul yaa ayyuhal kaafiruun ñeenti yoon juróom-benni rakka nag mooy ñetti sëlmal da julli ñaari rakka sëlmal julliwaat ñaari rakka sëlmal julli ñaari rakka sëlmal jërë ngeen jëf ñu ngi leen di sant ba subaa gi am riwal madadi ahlan wa sahlan wa tarhiban bila